résistance ndax nag malheureusement président Macky Sall gàkkal na suñu image démocratie ba fu ne dañuy kekkantoo waaye li ciy aussi suñu contentement mooy résistance bi nga xam ne sénégalais yi wane nañ ko ci bi mu attaqué seen démocratie loolu bariwul nga gis ko Afrique ndax fii ku fi mës a yëkkati violation de la constitution ba ci troisième mandat ba def lu la neex bari nag réew yoo xam ne yi dañ naan ah jaru ko waaye fii da koo jaral ngor yëpp jaral ko démocrate yi jaral ko opposition jaral ko journaliste yi jaral ko intellectuel yi man nag li nga xam ne moom laa ciy wax kàddu yi dama koy jëmale conseil constitutionnel conseil constitutionnel delloowaat ngeen président Macky Sall ci yoon ba mu wàccee yoon ndax kenn mës a ñu ne dans dix heures la élection la campagne électorale nga yeewu jël rajo bi ak télé bi ne fomm naa élection yi dem assemblée nationale ñu woteel la loi conseil constitutionnel jubalewaat ñu ak justice ci décision bi mu jël maanaam delloo siwaat président Macky Sall ci yoon ne ko loi bi nga xam ne jëloon nga ko c'est une loi anticonstitutionnelle demal nga organiser élection yi foofu nag vraiment ñu gis ci loo xam ne lii moo waral lii maanaam ñëpp ànd doon benn say pour que suñu élection yi nga xam ne sunu droit constitutionnel la président Macky Sall jël décision nee na day demoo loolu la waaye banaal noo gëm ne dem nga ñu gis la ci avion bay dem d'abord ñaareel ba mooy wax dëgg yàlla bu fekkee ne yow bañ lay fal 2012 man ku mel ni man àndoon ak yow ak ñeneen ñu fi ne jàppale la président Ablaye wadd nangu defetal toog def passation de service xolle ci bët dénk la lim lay dénk dem yow waroon ngaa def lu ni mel waroon ngaa delloo teraanga jooju peuple sénégalais bu fekkee ne da ngay dem le 2 avril it da nga war a organiser élection yi avant ngay dem munoo ko organiser na conseil constitutionnel jël responsabilité organiser élection yi sénégalais yi dem wate ji li ci am nag mooy conseil constitutionnel bu xasee ba dogal mu neex la mu naqari la noonu la ndax man mii candidat laa woon waaye dañuy gëm yàlla jàpp ne loolu la yàlla dogal conseil constitutionnel indi une liste définitive il ne pas question de revenir sur ça nañu dem ci élection yi ñu organiser ko le avril ñu tàgg yow comme loolu nga wax ci li nga wax ndax nag wax ji moom souvent mu tegee yoon loolu nga wax waaye nag li gënoon li nga xam ne moo gënoon a rafet te mu doonoon muy sa obligation même morale mooy nga organiser ay élection sénégalais yi dem ci élection yi fal seen président nag nga am nag aussi vraiment nga am nag vraiment l'honorabilité de nuyanteeg sa ki nga xam ne moo lay remplacer xool ko ci bët dénkaat ko réew mi nga xam ne moom lañu nga dénkoon loolu lañ doon xaat bi yow waaye en attendant li nga xam ne moom la ñuy dénk suñu bopp di ko dénk sénégalais yi mooy ñu bañ a la mobilisation moo tax ñu tuddee suñu bopp front de résistance ànd ceeg gor yëpp ànd ceeg démocrate yi ànd ceeg société civile ku nekk ngi ci journaliste animateur tout le monde la pour que vraiment ñu défendre suñu démocratie loolu nag aussi ñu nangu ne Afrique ak àddina yëpp rafetlu nañ taxawaayu sénégalais yi kon ñu leen di gën a ñaax les démocrate démocratie bi moo mag président Macky Sall fuuf kon nag li ñu ko war a wan mooy day dem bàyyi ñu suñu démocratie ñu defaraat ko bu ko defee nag nguur gi ñëw plus jamais ça plus jamais ça du monde plus jamais ça la njëkk a waxtaane la ñuy njëkk a waxtaane mooy réforme des institutions tegaat lii ci yoon tegaat dëkk bi ci yoon ba dootuñu toogaat fii ñu naan élection day am wala élection du am kon nag maa ngi leen di sargal yéen ñëpp di leen sant jërëjëf parole au de résistance ndax nag malheureusement président Macky Sall gàkkal na suñu image démocratie ba fu ne dañuy kekkantoo waaye li ciy aussi suñu contentement mooy résistance bi nga xam ne sénégalais yi wane nañ ko ci bi mu attaqué seen démocratie loolu bariwul nga gis ko Afrique ndax fii ku fi mës a yëkkati violation de la constitution ba ci troisième mandat ba def lu la neex bari nag réew yoo xam ne yi dañ naan ah jaru ko waaye fii da koo jaral ngor yëpp jaral ko démocrate yi jaral ko opposition jaral ko journaliste yi jaral ko intellectuel yi man nag li nga xam ne moom laa ciy wax kàddu yi dama koy jëmale conseil constitutionnel conseil constitutionnel delloowaat ngeen président Macky Sall ci yoon ba mu wàccee yoon ndax kenn mës a gis ñu ne dans dix heures la élection la campagne électorale nga yeewu jël rajo bi ak télé bi ne fomm naa élection yi dem assemblée nationale ñu woteel la loi conseil constitutionnel jubalewaat ñu ak justice ci décision bi mu jël maanaam delloo waat président Macky Sall ci yoon ne ko loi bi nga xam ne jëloon nga ko c'est une loi anticonstitutionnelle demal nga organiser élection yi foofu nag vraiment ñu gis ci loo xam ne lii moo waral lii maanaam ñëpp ànd doon benn say pour que suñu élection yi nga xam ne sunu droit constitutionnel la président Macky Sall jël décision nee na day demoo yaay lool la waaye banaal noo gëm ne dem nga ñu gis la ci avion bay dem d'abord ñaareel ba mooy wax dëgg yàlla bu fekkee ne yow bañ lay fal 2012 man ku mel ni man àndoon ak yow ak ñeneen ñu fi ne jàppale la président Ablaye Wade nangu defetal toog def passation de service xolle ci bët dénk la lim lay dénk dem yow waroon ngaa def lu ni mel waroon ngaa delloo teraanga jooju peuple sénégalais bu fekkee ne da ngay dem le 2 avril it da nga war a organiser élection yi avant ngay dem munoo ko organiser na conseil constitutionnel jël responsabilité organiser élection yi sénégalais yi dem wate ji li ci am nag mooy conseil constitutionnel bu xasee ba dogal mu neex la mu naqari la noonu la ndax man mii candidat laa woon waaye dañuy gëm yàlla jàpp ne loolu la yàlla dogal conseil constitutionnel indi une liste définitive il n'est pas question de revenir nañu dem ci élection yi ñu organiser ko le avril ñu tàgg yow comme loolu nga wax ci li nga wax ndax nag wax ji moom souvent mu tegee yoon loolu nga wax waaye nag li gënoon li nga xam ne moo gënoon a rafet te mu doonoon muy sa obligation même morale mooy nga organiser ay élection sénégalais yi dem ci élection yi fal seen président nag nga am nag aussi vraiment nga am nag vraiment l'honorabilité de nuyanteeg sa ki nga xam ne moo lay remplacer xool ko ci bët dénkaat ko réew mi nga xam ne moom lañ la dénkoon loolu lañ doon xaat ci waaye en attendant li nga xam ne moom la ñuy dénk suñu bopp di ko dénk sénégalais yi mooy ñu bañ a faiblir la mobilisation moo tax ñu tuddee suñu bopp front de résistance ànd ceeg gor yëpp ànd ceeg démocrate yi ànd ceeg société civile ku nekk ngi ci journaliste animateur tout le monde est pour que vraiment ñu défendre suñu démocratie loolu nag aussi ñu nangu ne Afrique ak àddina yëpp rafetlu nañ taxawaayu sénégalais yi kon ñu leen di gën a ñaax les démocrate démocratie bi moo mag président Macky Sall fuuf kon nag li ñu ko war a wan mooy day dem bàyyi ñu suñu démocratie ñu defaraat ko bu ko defee nag nguur gi ñëw plus jamais ça plus jamais ça du monde plus jamais ça la njëkk a waxtaane la ñuy njëkk a waxtaane mooy réforme des institutions tegaat lii ci yoon tegaat dëkk bi ci yoon ba dootuñu toogaat fii ñu naan élection day am wala élection du am kon nag maa ngi leen di sargal yéen ñëpp di leen sant jërëjëf